في مواغين كذا الطبيعة من خبث ومن كرم والحنظل المر لا يقتاس بالرطب من جيكو جو بون جيكو جو قمنا جيكو جو تدلا من نيوم نيار يمونيو نيك نغا قمنا قتر كن دوكو نتا كي تاندر مجو توي والحنظل قتر المر بايجي وخ لا يقتاس ديفوت كو تولل ديفوت كو نتا بالرطب كي تاندر مجو توي موي تاندر مجو نيخ نتا بوب دا سوف سوكر قتر وخ كن جيكو جو باخ جيكو جو بون كن دولن تولل niki noonu caqab wurus ak caqab përëm nga xam ne ni caq boo xam ne dañ ko tëggee ci wurus ak taq boo xam ne ni dañ koo seggee ci përëm tëgg ko ci ñoom ñaar duñ yem niki noonu caq boo xam ne ni ci wurus wala pettaaw lañ ko defaree duñ yem muy kon ne nag di wax mu ne wakkun ala salawaati alxamsi muxtafidan fa inna taarikaha musfin ala alatabi mu ne wakkun na nga nekk muxtafidan di aji wattu ala salawaati ca julliya alxamsi yay juróom ne na wattu julli juróomi di ko julli fa inna taarika naka aji bàyyi ko musfin aji sapp la alal atabi ci alkande alal atabi ci alko mu ne julli juróom ku ko bàyyi de na xam ne moom mu ngi ci yoonu alko yoonu alako waaw musfin mooy aji jege la sapp mooy ku jege dara tiim ko waaw ku jege dara moom la ñu wax ne sapp na ci dara niñ ko xamee julli borom xam-xam lañ ca wax mooy koo xam ne ni daf koo bàyyi moom ala kulli xaalin lañ dëppoo nañ ci ne dañ koy rey ndax dañ koy rey ci gëtën wala dañ koy rey ni ngir ne daa murtad foofu la borom xam-xam yi di wuute waaye borom xam-xam yi sax loola dañuy wax ne ku tayal ku tayal nga xam ne daf koo bàyyi ngir tayal la ñuy wax waaye koo xam ne daf koo bàyyi ngir jàpp ne warul kooku boroom xam-xam yëpp dañoo dëppoo ci ne kooku kéeféer la ab yéeféer la mooy bàyyi julli jàpp ne julli yow daf laa teggeeku ndaxte da nga am ak xusuusiya maanaam da nga am ak jagle goo am goo xam ne moo la teggil li nga xam ne mooy julli loolu borom xam-xam yi dañoo dëppoo ne kooku yéeféer borom xam-xam yi fa ñu wuute ndax yéeféer la wala du yéeféer moo koo xam ne gëm na ne julli war na ko de moom teggeeku ko amul benn jagle gum am ba teggeeku ba julli teggeeku ci moom kooku la borom xam-xam yi di wuute ndax ñenn ñi ne yéeféer la ñenn ñi ne du yéeféer ok mu ne xasil faraidaha xifzan wa maarifatan wala tudayi laha al awqaata fi sababi من حصل أمل الفرائض أي فرتم حفظا توت ومعرفة أتقم ولا تضيع بلسانك لا نيالك الأوقات وقتها في سبب في سبب منتدون من فرطا يجلي ننكو جيما قم تجيم كو سام أي فرطا يجلي من بلسانك وقت يجلي أكلو من تخو بمتخ وقت يجلي جوت نغنيك تلولا بابا يجلي درجة رول فاد وقته ak loola lu mu mënti doon nag amma qalilin bi hawlillahi tubsaru fi sadri almahafili liltadrisi wannuxabi mu ne amma qalilin ci lu néew bi hawlillahi ci kattanal yàlla tubsaru def na la gis fi sadri almahafili ci digg géew ya li tadrisi ngir jàngale wala nga ne fii sadril mahafili ci digg mbooloo ya mooy géew ya wan nuxa bi ak tànneef ya li tadrisi ngir jàngale mu ne bu fekkee ne def nga loolu day jaar ci yoon woowu jéem a xam julli jéem koo fonk jéem a jàng jéem koo jëfee mu ne boo jëlee yoon woowu ci lu dul yàgg dara ci lu dul yàgg dara danañ la gis nga nekk fépp fu am mbooloo dajee nga bokk ca tànneef ya bokk ci ña nga xam ne ñoo fay ñoo fay jàngale mahafil jamono ci mahfilun mooy mbooloo mu dajee fenn xam nga mu ngi bay ko ci ihtafala ji firi feetu na wala dajee na ci la ihtifal gi gi ñuy wax di jóge al ihtifal moy daje fetu wa kon mahafil moy ay mbolo yu daje mu ne takunu lil jamaa fi lmihraabi qudwatahum wa tartaqi min baral ajdaadi lil xutabi mu ne takunu da nga nekk lil jamaa ñeel mbooloo ma fi lmihraabi ca mihraab qudwatahum di seen royteef wala di seen royukaay qudwa mooy uswa dañuy wax uswa dañuy wax iswatun waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun ñeen lañu jàng iswatun kon takunu da nga nekk lil jamaa ñeel mbooloo ma fil mihraabi ca mihrab mihrab buñ ko waxee mooy fi gën a tedd ci ab bërëb rek ci luxal arabiya waaye nag ñu mujj di ko jëfandikoo ci jàkka bërëb ba nga xam ne moo fa gën a tedd ñuy wax mihraabul masjid وترتقي دا نغي يك باتاي منبر الاجداد منبر ماميا للخطب غير خطبه بو دافي لولو جار تي يون وو مولا واخ من منبر با ماميا اك باي دان يك ديفا جانغالي من بو وا يو ياي يك تي منبر وي منبر يويا تبدي فصاحة صحبان وتنثرها بمنطق رائق أحلى من الضرب من تبدي دنگ فينيال فصاحة صحبان فصاحة صحبان وائل arab yi dañuy sadd ci lépp moom lépp ngir fasaha wa tansuruha da ko lemmi bi mantiqin fasaha googu lay wax ne ko wala da ko lemmi da nga ko wisar bi mantiqin ci wax raiqin bay aji ahla nga xam ne moo neex min ad darabi ci lem ad darabu bi fatxi rai mooy al asalu mooy lem mu bu boobaa day boo defee loolu mu lay wax mu da nga da nga fasaha ba mel ni ngay nag wax wax yoo xamante ni wax yu rafet la wax yu neex ba mel ni lem waaw an nasru mooy diddu nazmu nazmu mooy nga woy nasru nag mooy ngay wax ni euh, nit ñi di la déglu nga xam ne nekkul nekkul ay way xam nga boo yéegee ci kaw min minbar bi la ngay def nasru la mooy dangay ñëw di waar nit ñi mu ne nag bu fekkee ne yoon woowu mu la jaar ya mu la wax yéeg nga ca ba jaar ca min baru maam yaag bàyyee yow yaa ca yéeg di feeñal fasa gu mel ni gu saxbaan ga waaye di wax wax yoo xam ne nasru lañ koy tuddee mooy wax yooyu tasaare nii di ko wax mu nekk ci kàddu gu rafet kàddu gu yéeme nga xam ne dafay neex ba mel ni lépp wa taktasi xulal alilmi alladi talaat arbaabuhu fi dayaajil jahli ka shuhubi mu ne wa taktasi da nga woddoo xulalal ilmi koddaayu xam-xam alladi xam-xam mi nga xam ne talaat fenk na arbaabuhu ay boromam fii dayaajil jahli ci lëndami réer ka suuf bi mel ni ay jum mu ne bu ko defee nga woddoon ak koddaayu xam-xam xulal jamono la ci xullatun al xullatu mooy firi complète mooy nit ki yére bu mu sol ak mbubb mi niroo loolu lañ ciy jublu mu ne nag bu boobaa da nga sol koddaayal xam-xam xam-xam moomu nga xam ne seeni borom dañoo feeñ ci lëndëmaayu réer ba mel ni ay jum mooy bu réer amee ñoom ñooy nekk jum yi nga xam ne ñooy leeral nit ñi ngir ñu xam seen diine xam nga bu njëkk nit ñi nga xam ne lampe amagul woon yi lampe pétrole yi dara amagul woon nit ñi bu ñu bëggaane nit dara ay jum lañ daan taal ku seetaan film yu yàgg yi wala yenn documentaire yu yàgg yi dana ko gis waaw ay jum lañ daan taal dajale ay matt ngir di ca niitoo mu ne nag bu boobaa yow yaay nekk jum bi nga xam ne yaay leeralal nit ñi ci waxtu réer ashuhub jamono ci shihabun jamono ci ashihab mu ne man faaraqa al alma xalla dullu saaxatahu walam yuazam walam yukram walam yuhabi mu ne man faaraqa képp ku tàqaliko al alma xam-xam xalla wàcc a dullu toroxtaane saaxatahu dingëreem walam yuazam deesu ko màggal walam yukram deesu ko teral walam yuhabi deesu ko wekk mu ne képp koo xam ne ni amoo xam-xam mu ne yow day toroxtaane mooy wàcc sa kër waaw toroxtaane daal ci ngay nekk kenn du la màggal kenn du la teral kenn du la wekk mu ne kam min sagirin yura wal almu kabbarahu muayyadin tahirin lil azzi muktasibi wa kam min wa kam kabirin yura wal jahlu sagarahu mubakkatin xaamilin fi dulli wal gadabi mu ne kam min sagirin bëriwaan a ndaw bëriwaan a gone yuraa dees na ko gis wala ilmu ta xam-xam kabbarahu màggal na ko mu ayyadin muy ku ñu dëgëral taahirin kay aji laab muktasibi kay aji fàggu lil izzi ñeel tedd nga mu ne bëri na ndaw looy gis ñu ko fonk ko te loola xam-xam ko waral waaye du ay at ndax ndaxte ñu ko mag foofa nga fa mu ne ñi daal di koy dëgëral mu nekk ko xam ne ko koo mu nekk ku laab koo xam ne dafay fàggu li nga xam ne mooy tedd nga te mooy xam-xam ndaxte xam-xam rek moo mën a teddal doomu aadama moo ko mën a yëkkati mu ne wa kam kabirin bëri waan mag ci ay at yuraa na ko gis wal jeexlu te réer saxarahu moo ko ndawel mu bakkatin muy ku ñu yeey xaamilin kay aji suufe fi dulli nekk ci toroxtaane wal xadabi ak mer mu ne nag nga gis mag tamit ni ñëpp daal di koy xep mu tuuti fa nit ña te la ko waral rek mooy ñàkk xam-xam réer gam nekk mu ne muy koo xam ne ni nag dañ koo yey mooy dañ koo noppiloo fu mu nekk bu nit ñi di wax du wax mu nekk ko suufe nekk ci toroxtaane boole koog di mer di mer ngir ne fu mu dem dañuy yëkkati ay nit ñoo xam ne ay nit ñu ndawee lañ euh, ci ay at amaat na sax juddu ci kanamam amaat na nekk ay doomam moom kenn du ko jox kàddu kenn du ko teg fu kawe loolu xam-xam rek moo ko mën a def mu ne wan fanzur ila xikmati al aqdaari kayfa jarat fii daa wa daaka la amri gaayatul ajabi mu ne fanzur xoolal ila xikmati l aqdaar yi jëm ci xereñ ak dogal yi kay fa jarat naka la dawee fii daa ci kii wa daa ka ak kële mooy ñaar ñu wax muy mag mi ñi xeeb moom mag la ci ay at de waaye ñu ngi ko suufel kële nekk ndaw ci ay at waaye ñu ngi ko yëkkati mu ne xoolal nag xereñ ak dogal yi yàlla yi nu mu dawee ci ñaar ñii la amri sama dund mooy sama ngëñ gaayatul ajabi loolu mooy daytalu kéemaan loolu fa la kéemaan yem waaw la amri sama dund mooy sama ngëñ gaayatul ajab waxoon nañ waat ci lu dul yàlla loolu dafa xaram waaw mu ne nag loolu kéemaan dëgg la xam nga waxoon nañ ne xam-xam li yàlla di wax ci alquran qul hal yastawi alladina yaalamuna walladina la yaalamun mooy ñi xam ak ñi xamut ndax danañ yem tontu ba mooy duñ yem feneen fa mu ne innama yaxsha allaha min ibadihi l ulamaau mooy boroom xam-xam yi ñoo ña ragal yàlla ndaxte nit mën naa bëgg baax sax wala mu bëgg njub mu nekk ci moom muy kër kër di ca sonn waaye fekk moom la muy def yëpp bu teguwul ci xam-xam daanaka euh, moog ñàkkoon a def ñoo yem ndaxte nit kii ñëw di bay ci ab tool nga xam ne moom mustaqam luy mbay xamul gàncax xamewul ñax bu ñëwee di bay mën naa dagg sax waaleykum salaam wa rahmatullah mën naa ñëw sax moom au lieu mu dagg ñax ma waaye muy dagg gàncax ga kon kooku la muy def yàq la ndaxte ñàkk xam moo tax muy dagg di raatale rek di dem moo tax boroom xam-xam yi di wax ne faddala allahu kalban ala kalbin bil alm yàlla gënal na ñaari xaj yoo xam ne ñoo yem de waaye yàlla gënal na benn bi ci beneen bi ngir ne beneen ba daa xam ta beneen ba xamul mooy xaj bi nga xam ne dañ koo jàngal rëbb ba mu xam xaj boobu bu demee rëbb bu jàppee dagan naa lekk waaye xaj bi nga xam ne kenn jàngalu ko rëbb moom bu demee rey tamit lam rey kenn du ko lekk kon xam-xam mooy séparer mbir yi mu ne wa baadu yaakaar naa mun nañ ko yemale foofu daa may gudd wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam